il arrive souvent que mu am ay malentendu ou dysfonctionnement c'est tout à fait normal que dans une coalition comme Yewwi Askan Wi qui regroupe pratiquement l'essentiel de l'opposition qu'il y ait en un moment donné des malentendus ou des incompréhensions mais c'est des choses prévisibles mais c'est des choses qu'on peut aussi dépasser il faudra faire preuve de responsabilité essayer d'être au-dessus des contingences partisanes pour comprendre véritablement yooyu pour xam ni lan mooy réellement bëgg-bëgg ak taxawaayu coalition bi parce que loolu yëpp njort woon nañ ko buñ koy créer aman bokkoon naa ci ñi ànduloon xalifa Sall dem kër gu nekk ñu fëgg fa gis responsable parti wala mouvement pour wax la suñu yéene bi nga xam ne moom la ñu amaloon pour taxawal coalition bi am na ñenn dañu woon da ngeen di perte seen parce que am na ñoo xam ne àlla kulli alin ñu ñëw bi ñuy taxawal yeewu askan wi c'était un accouchement difficile mm-hmm. je peux même dire que c'était une césarienne mm-hmm. on a senti avant yéeg nañu sax avant ñu taxawal yeewu askan wi quelques prémices mm-hmm. et aujourd'hui moi je cite souvent le cas du PDS parce que bi ñu koy dox di ko wax ñeent pàcc pàcc lool taxawu Sénégal Pastef PDS ak PUR ñeenti ñeent ñooñu ñoo doon daje di waxtaan ba ni léegi dañu war taxawal Yewwi Askan bi ñu nee ba ci biir waxtaan yi le président Ousmane Sonko que je salue di ko nuyu di ko sargal di ko taatagal di ko ñaan aussi xam nañu njàmbaarteem ak résistance na bàyyi grève de la faim bu ñuy def parce que dañu ko soxla en tant que être humain debout moom ci boppam. moo ni woon mënuma dugg ci mbir mi fekk waxuma wax sama ñooñ yi nga xam ne ñoo ma jàppaloon ci élection yi ñu nangul ko ko waa taxawu aussi ni ñoom taxawu lañu mais kuréel la boo xam ne ay parti yu baree ci nekk ak ñoo xam ne sax ñu parti day jaadu moom it ñu waxtaan ak seen njaboot waa PDS aussi ni ñoom am na ñu ñu àndal ñu nekk seen ginnaaw foog ñu leen li ñuy togg la mm-hmm. foofu la réeru bi commencé am. Mm-hmm. ba ñu wax ne dañuy daje ci siège PDS bi sax daje bi amul parce que boobu PDS su mi ngi doon wax ci ñaari kuréel ñii njabootu Karim Wade lañu ñii njabootu Ablaye Wade lañu mm-hmm. ba mujj gi ci jeexatal ba PDS def déclaration ni génn na ci boobu coalition ñu ni ñi nga xam ne ñoo dox coalition bi ba jëmmal ko ñooñu ñooy pilier wu coalition bi ñooñu ñoo war nangu képp kuy dugg ci coalition maanaam ñoo lay parrainé mhm. ñu yokk sax ni pour nekk président conférence des leaders ci ñeenti kuréel yooyu rek nga war a mën a jóge mooy taxawu Sénégal PASTEF PUR ak PDS mais comme que PDS dem na ñu ni ñetti nii si la ñu ensuite repêché ñu mel ni ay mali gàkku ñu mel ni ay ay dëmbooj ak d'autres partis ñoo aussi ñu daje ñu daje ak ñoom wax leen. Mhm. parce que boobu ñu ngi leen ngi doon tam. ñu wax leen ban fan la ñu jaare ba taxawal Yewwi Askan Wi. Mhm. noonu la mbir mi tëddee. alors Khalifa Sall am ci taxawaay bu mucc ayib Yewwi Askan Wi judd ci condition yoo xam dafa metti dafa tar mais heureusement avec leadership bu Khalifa Sall arrivé nañu à terre yenn contradiction ba yeewi askan wi nekk ci anam yu sell lépp lu ñu daan def dañ daan yëkkateendoo di dóorandoo ñu dem pëj bind charte bi ci charte bi ñu bind ci bépp prise de décision conférence des leaders accord boobu cadre moom moo koy tëral et li ñuy privilégié moom mooy règle consensus ñu def Khalifa Sall président la conférence des leaders mu amee que ci anim bu mucc ayib di ko doxal aussi di doxin bu rafet ñëpp dugal ci seen loxo maa ngi fàttaliku aussi bi ñuy taxawal yeewi askan wi ku ñuy wax Cheikh Tidiane Youm di responsable moral pas moral mais responsable pur ginnaaw suñu wéyjur suñu sëriñ sëñ Moustapha Sy dafa laaj ni est-ce que ñun dañuy taxawal yeewi askan wi pour ëllëg jàmmaarloo nguur gi ci problème bi nga xam ni Ousmane Sonko am na ko ak Adji foofu sax la ñu ni non utiliser wu ñu Yewwi Askan Wi pour loolu Yewwi Askan Wi nañ ko utiliser coalition politique pour boole suñuy doole boole suñuy yéene bind charte bi ni dañuy ànd ci élection locale yi pour wuti ay maire mhm. dañuy ànd ci élection législative yi pour wuti ay député bind aussi ci charte bi dañuy def suñu kémti lay kàttan ba Khalifa Sall recouvrer mhm. ses droits civiques mhm. c'est inscrit dans la charte Mm-hmm. ñu ne nag bu ñu àndee ci élection locale yi ànd ci élection législative bu ñu dëgmalee élection présidentielle képp ku ne ku mu neex mën nga dem nga wuti pour nekk candidat mm-hmm. boo nekkee candidat aussi ci processus électoral bi nga xam ne moom la ñuy am dëgmal ci élection présidentielle dañu war a boy xool du ñu ciy taxawee nu ñuy defee représentant dans le bureaux de vote nu ñuy gérer le processus électoral ñu boole suñu ay doole noonu la ñu doxale